Mera the world, Mera the Senegambia. There's some uh, royal message, the royal greeting be for my president, Adam Barrow of the Gambia. To my full royal respect, President Adam Barrow, on your great peace speech you gave. It moved me. My full royal respect to President Adam Barrow of the Gambia. I, the Crown of Peace of Senegambia, I salute your speech. Mr. President Adam, you say it all. Longer lip. Because in real life, so xamee finger fi nga place la bi nga amul tur is called period and momentum soo fa toogee de dafa am time The time book zappee is apt So I appreciate bu baax ni nga ko message of peace bi nga two days ago is powerful and he will move every crown ambassador ñun suñu liggéey mooy lu ñu bëgg di seen Gambia first always di Gambia first njiit nii lay def place bi nga xamante ne amu tur il suffit que mu am ku fa nekk rek place ba doogee am tur te noonu la place boobu sàncoo te noonu lay amee ay tur tur bu nekk dina ko am kenn xamul suba ban tur lañ koy woowee kenn xamul tey ban tur lañ actuellement yaa fa nekk yow yaa fa yow lañ fa tuddee aadama Barrow the president of the Gambia ma kontaan trop ci sa message de la paix message doomu Gambia pur message njiit bu nga xamante ne dafa considérer population am bu am respect ci population am bu am value his citizen nga xam ne foofu nga toog kenn du fa teg kenn lu dul carte the population di Gambian people ñoo fay teg nit donc may saluer sa full respect bi nga respect di Gambian voters who have chosen you to be their leader their president ma saluer the full respect boobu Mr President Adam Barrow ndaxte bi nga xamee nga fàttali nga xamante ne amoon na ko fa nekkoon juróom-benn at mi Jawara mu am ko fa nekkoon fa 22 years mi président Jammeh ku ci nekk wane nga fi nga mënee a wane nga fi nga jàpp waaye ba tey ñoo ñëpp dem nañ ñi bàyyi di Gambia in peace so yow tam yow mi nga xamante ne yaa leen succès nga decide pour bàyyi di Gambia in loolu mooy symbole of the Gambia so day nekk reputation bi nga xam bu baax so the Gambian population dañuy xam ni que in the Gambia doesn't matter what the situation how dangerous it is at the end of the day is always the Gambia first so right here, ñun gëmloo nañ ne the Gambia are always being safe di salute loolu ci yow di salute your full respect and your full consideration of the children of the Gambia. My respect to you, my president, Adam Barrow. You know, speak bunga joke. Tay, muno na doon President Macky Sall mii naan moo la mag ëpp la xel day ñëw napp la mu lay manipuler di la contrôler indi Gambia tey ñun as the ambassador of peace ñun we expect that piece of speech you give Mr President Adam Barrow mu nekkoon tey place Macky because you know why di Gambia ba mu ba ñu gisee ni di Gambia fu muy dem is not a promising guerre dina am moom mii Macky bu senegal moo dugg pourtant di Gambia mu ne day seet di Gambia so tey sa message of peace bi nga joxe Mr President Adam Barrow te xamante you are a newborn in a political land yow mi doon newborn ci in a political land yow nga am a great heart of pity and mercy caring consideration of your country yow jëloo sa greediness nga dem ak moom danga xam ne que siège bii nga toog tey Adam Barrow la tudd mais suba am na tur keneen siège boobu kenn moomu ko then you expect the example, this great example you show, to be one of the old veteran politician who leading in Senegal today, Macky Sall. tey message bi nga joxee Mr President Adam Barrow You don't expect ci a maam sa maam politician, Macky Sall Why? tey Macky Sall mi la teg ne yow xamoo li ma yàgg wax de nit bu xasee ba xool moromam ne ko yeewoo ndeke moom moo ñàkk yeewu te moo ñàkk muus ndekete yow kanaan moo lay jàngal ndeke yaa ko mun a jàngal Gambia moo mun a jàngal senegaal président Adama Barrow yaa ngi advice sa maam Macky Sall mu xam ni que siège boobu tey Macky Sall la tudd suba am na tur te benn tur la am mooy Adjumma Sonko moo fay ñëw donc da nga xamal ni que ñi ko ëppoon doole ñi nga fa woon mais tey dem nañu te yow yaa ngi fiya sa ñaar jabar yi nga am ak sa njaboot bëgg nga tey bu ñu demee ak fu ñu dem dem dem dañu ne we are going back home te seen home mooy fan di Gambia sa wax daf ma move ndaxte fi nga dëkk village bi nga jógee matul fanweeru kër and you proud of it tey village boobu tey da nga leena bëgg la good legacy good legacy ëlëk bu ñu di la konté ci président yi nga xamante bëggu ñu xalé yi sa ñu leen di tuddu non donc yow da nga am respect ci sa njabot nga nga care about your future of the your children ëlëk ñom tamit bëgg nañu doon kenn bëgg nañu continuer the legacy of their father bëgg nañ ko maintenir in a positive way like how you speak mu nek lu très lu am importance and the leadership. So, so legacy Bobunge protect. I will advise you to continue to protect and that route. You are winning spiritually, verbally, and physically, and winning the respect. Pastor, at least you are already in this three book. You are already there. So protect. The protect ko mogan. Te def ni tey ñi nga xamante ne ñoo war a ñëw tey ñu koromp la tey ñooñu ngay yett tey ne leen carrément ku toog boo jeexalee demal di la my full royal respect to you Mr. President Adama Barrow a leader should combine peace a leader should show a good example a leader who care for his population should always protect your population doesn't matter what lu suñu di neex a neex a neex sama ko gën a neex di Gambia mooy sa kër di Gambia mooy sa identité di Gambia mooy sa heritage of your children te nga commencé ko porter depuis léegi I have full respect for that and I stand by that as a crown of peace di naan again I upgrade my full respect to you Mr. President Adam Barrow I salute your speech respectfully and royally. Your speech is excellent. And your goal is very peaceful. And it promises the Gambian people. You have right to go prepare for your, all your candidate you need. Because you are most finished. But you ask them to give you time to finish whatever left to leave a good legacy to work harder for the Gambia for tomorrow. They will say, at least Mr. President Adam Barrow did this, did this. And I agreed on that. My people and the Gambian people is a voice of the, a son of the Gambia. Ne na ngeen at least look at this. ngeen supporté ko mu ko bu mu leen gën a gore nag bu mu leen gore ak ah, the sake of the Gambian ci the Gambia first ngeen am respect ci loolu tamit ngeen support ko mu àggale lu ko dese ndax moom tam ëllëg bëgg na bàyyi legacy ngeen wax ak moom kii moo leen respecté yàbbu leen donc yéen tam ngeen war am full respect ngeen salut lu mu wax ngeen dem ànd ak moom ngeen may ko time encourage ko mu liggéey lu mu war a liggéey lu ko desee bareetul wax na ko donc dama bëgg comme lu ñu bëggee di gambia force nu ñu amee full respect on di gambia ñi am respect of the message bi nga xam at least moom mooy the leader wax na so there is no competition there with adama baro wax na li muy wax pare donc yéen ni ngeen bëggee di gambia ngeen am respect di gambia ngeen war a salut loolu moom bu mu leen gën a gore te bu mu leen gën a wan ne moom moo gën a bëgg di Gambia parce que wax is a symbol te wax na ko ñun the original children of the Senegambia the spiritual voters danaa la ñun ñoo ko cuus teg ko Adam Barrow is the hold up ak country hold up président mais moom he was the right one ñu put ko on place mu maintained a maintain the Gambia in the meantime ba keroog ñuy xam ñi tànn ku fa war a toog mu liit en mi ngi faaloot mission am fulli xam na lu ko indi xam na lu ko fa teg pour respect to that so ma del naan we all stand for the Gambia force and we must stand for the peace President Adam Barrow have give a great speech and we should respect that for the love and the respect and the sake of the Gambia we have always the Gambia first. Again, my full respect to you. My full royal respect to you, Mr. President Adam Barrow. I, the Crown of Peace Ambassador of Senegambia, totally agree with that and always stand by you, my proud son of the Gambia. Mera.